dama for ci bay ne président bi mu waxee li nga xam ne moom mooy euh, bëgg-bëggam mooy ñu jàppale ko ci wàññi euh, prix dund bi euh, sa gars yi dañoo engagé wu ne dinañ accompagner. mais wax naa ko ci seen yow nga ne li ñuy li ñuy wax mënuñu koo ko wax ci kanam foo foo foo teg xam nga xam nga kii xam nga xam nga lu tax man ma jafe. ma jafe nekkal xam nga dëgg sama papa daf ma teel a wax ne ma dellu wax dëgg toujours ndax boo nga baal ma boo fenee da koy fàtte mhm. ëllëg dañ lay waat nga wax leneen soo xamee structure de prix bi ci ci li ñuy wax wàññi ndax bala ngaa wàññi dara ceeb ngay wax boo xamee structure de prix bi ñiy jaay ceeb rek la mën a wax ndax mën nañ ko wàññi mënuñ ko wàññi te ñu fa toog ñëpp jaayuñ ceeb importé wuñ ceeb gisuma fa ko fay importer ceeb importateur ceeb yi woowuñ leen te autorité yi war nañoo dem rek ci duwaan laaj ko statistique xam nga état bi léeg-léeg dañ koy euh, du dañ koy gëlëmal dañ koy gëlëmal sax na laa lay wax wax dëgg yàlla ñun secteur privé on est très fort na <laughs> on est très fort ci gëlëmal ku mën a doon ndax yéen journalistes yi gëlëmal nañ leen ba nga xam ne bi ngeen toogee naan patronat patronat chambre de commerce chambre de commerce te xamu leen li ci biir gëstuwu leen ko te boo tàppee woon internet li ma doon wax benn waaye barki dem ñu dajee kii bi ma laaj ko benn affaire ci Maroc mu ne ma pay moi ma ne ko non I don't pay I will ask Mr Google ma dugg li ma laaj ma laaj Google rek mu génneel ma lépp ma tontu ko c'est-à-dire soo bëggoon xam laajteel l'utilité de chambre de commerce ak l'utilité patronat association professionnelle da ngay gis ne loi bi dafa leer waxuma la Sénégal standard international international fépp boo demee Turquie am na patronat am na chambre de commerce France. mais mais mais xam nga président Macky Sall ba muy def concertation sur la vie chère dafa invité pàcc yëpp. waaw ñoom Moustapha Ndiaye euh, ñoom euh, waaye importateur beneen Moustapha. Tall Moustapha Tall. Hmm. Euh, invité les boutiquiers détaillants invité les les grossistes invité les autorités. Euh, portuaire invité la douane invité euh, commerce intérieur ñëpp ñu ñëw toog gars yi wax est-ce que ñoom juumuñu ci formule bi est-ce que parce que parce que nee nga dem importateur mu importateur de de de riz nekku fa te mënoo wàññi ceeb te waxtaanuloo ak importateur de riz. pour pour pour pour pour pour démb li am bi est-ce que juumuñu ci formule bi. non xam nga man li may wax rek mooy kuy doog di ñëw. wax dëgg yàlla. da nga koy jéggal lu bari waaye ñoom ñoo doon induire en erreur parce que xam naa invitation yi nañ ko doon defee ndax wax nañ fen ne président yi rek ñooy ñëw. président. Euh, président yi mooy su dee président mm. union président mm. nangam. normalement bu doon loolu leen def man bu ma ñëwee président union président Dakar waru fa toog. Mm. pour parallélisme des parce que boobu président Dakar toogee président Fatick war naa toog. et c'est le décès du président moom moo moom moo. waaw mais mais attends ñun dañuy wax. li ñu yaakaar xam nga tamit dañuy wax ni li ma la wax dañoo war a jox avis ñun waxul ñu ñu appliquer li état bi wax dañuy wax ne dañuy joxe ay renseignements donnés au gouvernement ou tout autre organisme national au international sur demande au sur sa propre initiative des avis et renseignements may mu ne li may def loi moo ma ko wax mi ngi mel ni juge bi wax ne ko article 3 man décret lañ jël loi wote ko assemblée ne ma yow lii mooy sa comprendre nga li bëgg a wax kon ñun bi ñu ñëwee li ñu wax président wax nañ ko ko dañ ne ko man waxuma ko mun mënta nekk dama ne ko dañuy dem ñu wooyu acteur yi te acteur yi da koy dem région bu ne woo gouverneur yi ñoom ñu toog waxtaan bu ñu toogee fii app appliqué la ay prix lan lay jur xam nga Abdou Karim Fofana fii toog nañ fi wax prix naan damay wut ay ay oto yuy contre prix luy contre prix contre prix kay balaa neex nit ki xanaa xamoo contrôle prix mooy li gën a mën a yokk prix. contrôle prix gis nga commerçant saa yoo ko fixé prix ne ko lii ngay jaayee mu xool ko calcule ko ne ko mënu ko jaay xam nga nu muy def da koy ña jub duñ ko jaay ña juba di def marché noir nga yebal contrôle prix <laughs> ñu ànd ak ñoom rek ay sénégalais lañ xam nga li ma bëgg a wax. soo jëlee xale naan contrôle pur fay ko cent mille fay ko cinquante mille mu dem ji fenn nar jàpp kenn nangu ko place am mu am lu mu ko buux lan lan nga ci mën. mais bu ñu defoon contrôle prix je pense que mën nañu jël les prix des denrées euh, di ko taf ci boutique yi. di euh, gis nga contrôle de prix di defaral seen bopp le contrôle contrôle de prix. amul ci loi commerce dañ koy def nii dañuy violer loi bi xam nga lan ngay def contrôle de prix lu baax mooy essayer que le produit soit mu mu mu doy. mu disponible mu disponible bu baax. en grande quantité en grande quantité. kenn du ko ku jaayul sa morom jaay lu gën a yomb mais yi nan rek ci presse bi fi benn télé nekkee jot ci émission wala publicité dafa jafe de kon je pense que loolu xewi na.